honorable loo gisee par exemple niveau débat yu am au niveau de l' assemblée nationale par exemple ñi ngi wax ni assemblée bërëb la bi nga xamante ni nga ko waxee sa biir kàddu mooy défendre intérêt askan bu fekkee dañ fay sulli ay déballage tamit ay mbool ñu ko fay sulli biir hémicycle bi loolu noo ko gisee waaw xam nga assemblée mooy lieu boo xamante ni c'est un lieu débat démocratie bu fa xas député xasee ba nekk lu mu bëgg ak lu mu sentir ni moom mooy li nga xam moom la war a wax war na ko wax pour mu njariñu askan wi man loolu laa jàpp mais léeg-léeg nga dégg député yoo xamante ni léegi-léegi nga dégg député yoo xamante ni da ngay gis maanaam opposition bi di wax député yooyu bëgguñu dégg lan la opposition bi di wax lu dul ñu koy dagg ak di ko saaga ak di tàccu wala di dagg ay waxam loolu lépp bokk na si manque démocratie ndax nit ki bu fekk yow da nga am majorité kii yor benn minorité boo xamante ni cest bu am solo la boo xamante ni poids bi mu yore ndax ancien ministre ancien directeur ñu yëpp mi ngi ci woon ñu yore ko ak ñun ñi nga xamante ni ñëw nañu nekk ay dongo daara ku ñu xam suñu taxawaay ci Assemblée nationale kooku yow doo bëgg sa ñëw cëf yi nga xamante ni sa nguur mi ngi koy def ak di tappale yi muy def ak bañ mu feeñ duñ nangu mukk maanaam nga di ko wax pour média bi mën ko jël pour askan wi mën a dégg loolu pour gën leen bañ léegi nag loolu na loo xam ñu ngi koy jàppee ay déblage wala ay ay ay mbootu jaamur ay mbootu jaamur yu mel noonu voilà loolu aussi tamit am na si loo xamante ne xam nga askan bu la tànn yónni la fi amul mbóot cest à lépp loo xamante ni boo ko waxee mu leer na li nga wax dëgg la boo ko waxee amoo si benn loo xamante ni tey looy rendre compte askan askan ñoo la tànn yabal pour ne demal assemblée nationale lépp loo xamante ni xam nga ñu suñu alal la te ñu ngi koy caax-caaxee te ni ñu koy defalee baaxul jarul yoon nga waxal ñu ko pour que man ñu mën koo dégg ñi nga xam ñoo koy def pour ñu dañ si loolu loolu am na si yoo xamante ne ko yooyu yaakaar naa ne assemblée nationale war na ko mais loolu lépp li koy waral mooy xam nga assemblée boo xamante ne ñëpp bokkuñu jikko ñëpp uh-huh. bokkuñu fu ñu yaroo ñu si bari amuñu xam-xam muy jànguñu français jànguñu alxuraan dañu ñëw rek maanaam si hémicycle pour que ci liste nationale bi lan falu Macky Sall fal leen ah. ñu tànn leen moo tax ñu naan ñoom ay député Macky Sall lan